dikk ak yéen ci xibaar yi tey dimanche ñaar fukki fan ci mois de mars 2022 ñeenti waxtu ci ngoon di 16h teg na ba jot fanweeri min ci Ndakaaru ñu dikk ak yéen ci xibaar yi liñ ciy tàmbalee nag mooy benn vidéo boo xam ne ci suba ñoo ngi koy gis booba ba léegi muy vidéo boo xam ne gis nan Ndeye Khady Ndiaye borom salon Sweet bi nga xam ne euh, fa la euh, mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko daal di soqi ko booba ak léegi ñu gis benn vidéo ci suba euh, kii di Tans di liggéey ci Leral TV di faral di def journal people yi daal di wane benn vidéo bu Ndeye Khady Ndiaye di wax ne moom salon de beauté la doon défendre waaye nag Ousmane Sonko moo def lépp loolu doon ay kaddu yoo xam ne dégg nañ benn vidéo Ndeye Khady Ndiaye di ko wax yooyu kàddu nag euh, fan la jógee ak naka la demee ginnaaw bi loolu amee comme ni leen ko waxee rek FPGW ci xibaaru biir réewum Sénégal waaye ak bitim réew ci côté opposition ak parti au pouvoir lépp a ci yem. bépp information bu nu jot dañ koy vérifier mu jaral nu lépp ngir ñu mën a am information bu wérte te wóor bu leen ko joxee rek nag euh, pare nañ ca la ca des yéen yéen ay xool la ngeen cay tànn ak la ngeen di bàyyi bi loolu amee nag su nan gën a yaatal suñuy gëstu ba sax mu jaral nu ñu daal di jéem a jokkante waat ak borom këru Ndeye Khady Ndiaye di Ibrahima te moom sax dañ koo gis ci biir vidéo bi ñu daal di koy laaj directement nag ndax kàddu yi nga xam ne dégg nañ ko. Ndeye Khady Ndiaye moom moo ko wax wala déet moom ci jëm bopp nag bi mu jotee kàddu gi dafa ree wax ne daal mbir mi sax lu ko jaaxal la daal ñuy wan vidéo bi nga xam ne mooy vidéo bi nga xam ne ci lañ jëlee lii muy kàddu yoo xam nag dañ koo dagg Ndeye Khady mi ngi doon wax waaye lim doon wax bokkul ak lii ñu ko wax loo danoo dagg kàddu yi féetale ko ci benn côté temps def ko wala sax peut-être ñami liggéeyandool jàppale ko ca ba tax na danañ leen indil vidéo bi nga xam ne ci la Ndeye Khady doon waxee wax ji nga xam ne moom la utiliser dagg ko ngir mu mel na sax kuy chargé Ousmane Sonko wala mu di ko déchargé ci gàttal nag lii defuñu ko ngir Ousmane Sonko defuñu ko ngir parti au pouvoir dañ koy def ngir ñun suñu liggéey mooy doxee noonu ci information bu wér te wóor ci la ñuy dox mu neex nit ki nag ak mu naqari ko loolu leneen la waaye li nu sàmmonte yéen mooy jox leen information yu wér te te loolu la ñuy def ak yéen duñ ci njëkkante léble wuñ ci te fayuñu ci bor kenn. ñu ñaan leen jàmm seen mbokk seen xarit ko Lo ngeen suivre nag ñaari vidéo yi bu baax tey tamit ngeen di bàyyi xel ci bu ñu leen joxatee séquence boo xam ne ci 30 secondes la wala 2 secondes da ngeen di xool fan la source bi commencé foofu lañ toll ci jamono léegi sensibilisation bi foofu la fi ñu toll ci jamono mooy lépp lu ñu leen waxati même bu ngeen ko déggee sax na ngeen gën a yaatal dégg gi lan moo nekkaat ci ginnaaw bala ngeen di wax c'est importance parce que loolu valable na pour ñëpp ndax ñun ñi sax mën nañu ko def ëllëg ki la bëgg yàq moom boo waxee la mu soxla ca la nga wax rek lay dagg génne moo tax àdduna di doxee noonu ñu toll ci jamono ju lëndëm nag yoo xam ne képp koo xam ne àndu ak dal finalement sax man nga dugg ci li nga xam ne mooy xew ndax li nuy jot ci xibaar fi mu toll nii nekkatul dëgg te mbir mi wóoratul am na waykat bu ko wayoon wóoratul fi mu toll nii ndax ginnaaw dem nañ ba ñun jàppoon ne ñoo ñuy wax dëgg léegi lu ci ëpp dan lay wax am lu ñu ca làq ca ginnaaw muy man muy sama moroom a ci yam lu ngeen ci déggati rek ni ngeen koy gën a teewlu bu baax tey xam bu baax fan la source bi jógee ak lan mooy ndey wax ji ak wax ji lan moo ko tax a jóg